bañ a yem ci liñ la dénk képp jàllale xibaar bu mucc ayib daal di dëggu itam loolee lañu xaaral xaaran ci taskatu xabaar yi ngir ñu mën amal li ni mel nekk ci jamono ji nga xamante ne nag ministère yu bari ñoo ngi voté seeni budget tàggat gu mucc ayib moo leen ci jàppale. yii dafay baax ñuy gën di tàggat euh, jeunes reporters yi ndax ñoom ñoo ëpp sur le terrain kon tey jii dafay baax ñun tamit ñuy am genre session de formation yi ngir lépp li nga xam ne moo soxal suñu liggéey ñu mën koo def ci anam mucc Euh, cette série de formation. suñu paree formation bi ak ñii di taskatu xibaar yi am nañ yaakaar ni dinañ mën segg li nga xamante ne ni moom mooy dëgg ak li ko nekkul ci yenn déclaration homme politique yi. exact. Euh, député yu bëri euh, daal di voté projet bu loi de finance bu atum 2024 mu doon nag xabaar bi nga xamante ne nag journaux yu bëri jàllale nañ ko. gannaaw nag ba ñu amalee ay yeneen gostu li ci fës rek moo di am na leneen li nga xamante ne moo ci ñuul ki gàlloo euh, kàddu convention bu jeune reporter muy ñaax ba ku nekk daal di ci amal gëstu bu am solo. lan moo tax ñoom li nga xam ne moom lañ dugal comme document gisuñu ñu bind ko fa buñ ko jàngatoon dina dina tax rek dinañ gën a gindi askan wi ñu bañ a jàpp rek li ñu tiitre ñun ñëpp ne ne bon sept sept sept mille milliards lañ am alors que euh, gën na néew loolu. ci ndorteelu ndaje bi nag lu bari jàngal nañ ko taskatu xabaar yi ngir ñu waajal yeneen scénario yi leen di xaar.